liggéey démb ndoguma xëdduma te tey jii koor gi saf na waaye xam naa ni may def ak ñoom dañoo xam ni màggatum koroj koj maa leen gën a nekk fop xam ni may def kay xaaral waaye Ndiaye ñu yokk ndànk ndax tey daa mel ne Ndiaye lan moo xew. ba ma yow wala gis mu la. ah loolu moom mënu ma koo xam. oo ko. te fii. góor góor na de bordel na ko de kay. sa bëñ buy métti. fii bëñ bi mooy métti. ah ndeysaan massa massa massa massa massa massa ah. naa tey moom kon woor doo ko mën a def. ah. tey doo woor woor wàcc na la. loolu ma nga ca téere naar yi boo demee fekk ko fa. xam ni lu yaram loo xam ne dana mën a oyof ci bi. nga naan ko dina baax. ci sama léegi ci yàlla dina toog bismillah jaay bismillah yow moom xam naa tey woor wàcc na la waaw man maa ngi ci biir gàllu ndax damay bëgg a préparer nga jaaxle soo paree nga dal fii gën soo moom xam naa doxee na waaye mu fekk la fi de saay saay la de Isnar. Isnar. tawat jarul yu bëri ma koy jox wala bu paar ñee mana ne ko dara jotu la nga moom tappale. waaye booy booy booy góor góor. yow foo mu toog man sa bàyyi laa. ni sàmm ma ne ko ma lekk ba paa bi ñëwee ma ne ko maa ngi. damaa boole ñaar insomnie mooy ah insomnie mooy mbàq buy métti ak bëñ buy métti moom laa boole insomnie insomnie. jàppale dara jotu la jox ma ko waa fépp nii ma ne ko nga teg démb. boo tibbee dama xay wax booy tibb ma buy dugg ma ko xay wax lii bëriwul dafa naa solo bëriwul. man ñaar la tuddal ne maa sa bët may tudd xay loolu moom yow woor ngay woor woor daal